ñaan leer sun borom yalla bu mu dañ di dootiku ci ru Maulana Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ko ñaanal tamit ñittu eh, yalla yi ko jitu won yëpp di siar sunu sang bu tedd bi Cheikh Ahmadou mbake maul hayat di and ak mbolo bi yëpp yi nga xam te ñoo fété diwanu yarah yep di and ak ñom di ñew di teewaat sa kanam di yeesalaat sunu talibé di salat sunu jaayante ñu ñëpp ak di yeesalaat cant goo xamante ni fees na del ci xol yi waaye lottu nañ ko ci genn ko ci sant santu santu xamante ne am na fu mu tàmbalee am na fu mu amna na fu mu tàmbalee amul fu mu yem muy lépp ci ñun wet goo rek wet goo jël rek fees na dell ci wàll googu wet goo jël rek sunu sëriñ la sunu yaakaar la sunu lépp wet goo ci jël rek fees na ko dell kon sant nañ ko dayab sant kon goo xamante ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu di ko ak mbokk taalibe yi di ñëwaat ci sa kanam di yeesalaat sunu jaayante di gën a sunu laxasaay laxasaay goo xamante gu yees peq lay doon boo xamante ni jëm rek ci kanam amul gestu amul dengi dengi amul kii kon ñu ngi koy yeesalaat te ñaan suñu borom téyel ñu ko te sàmmal ñu ko te aaral ñu ko te seytaane bañ ci am yoon mukk mukk mukk suñu ànd bi yàlla bu seytaane am yoon ci sunu pas-pas suñuy suñuy kàddu suñuy jëf te yàlla defal ñun gën ngaa rafeti teggin yoo xamante ni ko ànd yow ci ci anam yëpp ci pas-pas ci kàddu ak ci jëf te yàlla sàmmal ñu ànd bu baax a baax a baax waa cant gi daal fees na ci xol yi del koo xamante ni làmmiñ ñu mënu koo génnee Ini sante bu baax dila ñaan tamit nga yag fi lool te and ak wér yag fi lool lool te and ak wér ba li nga yene liggey lepp nga àggale ko ci ci ak dal ak tay te àggale ko lu kawé sa njort suñu ko ak yow ci gën ka rafet anam te yalla bu ci ndok am yalla bu seetaan am yoon mukk te yalla na rafet ni sante bu assalamu alaykum wa rahmatullah sant bu baax de yeesal sama cant di jëmele ci bokki talib bi yépp waaye nak di am loolu danaa koy faral di séré ndax fi dama fee yalla dafa dogal ma ci fi mi ma fi ci it benn kaas la fi ci amul menn mbokk it mu andon ak man ca sant ci ga ci mbokk deret ba fi tambali sax di tabax tabax yu xawa a sax am na ñoo xam ne dañoo ni sax dox bu liggey la bima waxe waxe juma am na ñoo xam ne dañoo sama gemign ñu dem ba li lepp taxaw waye nak ñi nga xamanteni am nañ yene ju fess del ci seen xol ngir dekk ak man ma ngi ñaan yalla mot li leen ko ci gën ngaa rafetene anam waye ñom ñi nga xamé yalla dogal na am nañ yene ji te am man-man bi lolou day jëf ju feñ ndax nit ki man na yéene lo xamni su demoon ba am du ko def ndax da am ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ma am suma amé dana taxawul islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko mo jàpp ñaari xar xar ya di doliku dollikin woo xamni dem na dayo mu nek ci bir madinatul munawwar ñu diko wax sahlab ba mujj xajatu ci biir dëkk bi ngir jur gu bari mu dem ca àll ba di sàmmi julli juróom yi mu daan julli si julli seetu ko mujj na julli ajjuma sax julli seetu ko mujj na bi asaka wàccee yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni ci ay ndaw ci moom ngir mu génn asaka ci jur gi dañu leen dem leen ba wàññiku jaar fi fekk ma xalaataat bañ wàññi ko te jaar fi it tuxul mu nangu te dane won yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam kat boo ma ñaanalee ba am dana and ak yow taxawul islaam kon yéene amna solo ki yalla may nak mu yéene ba nopi jëf ja top ca loolu day lu degg ca xol koka day lu wër ca koka ndax ni li mu def ni firndel na ma ni mom fuma ne ma nga faak man luma ma nekkuy defa ca ak man ndax dafa am lol mom jëfa koy firndel jëf ga man manu wax nag mënees na ko wax xolit mënees na ca yéene waaye jëf moom bu dikkee lépp day dàqu kon nag yàlla na yàlla dimbalinu ak mbooloo mi yépp lii nag ab tàmbali rekk la nu xam ko waaye danañ dem ba pénc mi yépp lu fi waaye fas daal yéene ko da nga ca jëfi lu kawe sa njort man daal loolu mooy li ma xam ku yéeneem tuut moo xam ku yéeneem rëyit moo xam waaye lu waay yéene daal wóor na ma ni bu yéene ja sellee yàlla dana la ca fekk lu kawe sa njort te dara munta dindi lool ci mbaaxam ay yërmandeem ak tawféexam yàlla moom mbiram jant la ku munta ajji jant bi mënoo dara ci tawféexi sunu borom loolu daal na leer ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf suñu nooyee rek suñu bëgg si yow yàlla yokk amiin saa bu ñuy nooyee rek suñu bëgg si yow yàlla yokk amiin xooluñu dara gisuñu dara bëgguñu len sa jëmm ji képp lañ soxla wallaahi leneen li ñu ko dañ ngay bëgg di la liggéeyal kese ànd ko see góor a mbooloom yëpp wallaahi jërëjëf Mbacke jëf amiin amiin yaa rabbi dama leen ak ngan googu danaa ko fàttaliwaat ren incha allah sëriñ na waa Yaraat mayaat ba leen gan gi mu leen mayoon daaw. waaw bu nu yàlla mayee bu fekkee waat te toll. Eski. Neyse. Eski. Neyse. Eski. Ben Malik dışarısı. Neyse. Eski. Eski. Eski. Nên nhau, nên nhau. Anh đi lượn. Hả? Ba. Nên nhau nhau cắt được. Eski. Thank Escape. Slow.